فتوحتي لحمتي بينس بايقن شدام بلاي جن جوان سودان سلبار أما توحتي لحمتي بينس بايقن شدام بلاي جن جوان سودان سلبار أما توحتي لحمتي sii ñes bàyyi gën ci doom bilaay ñun nga ñor ko daan siri bara ama waati sori bi ñes bàyyi gën ci doom bilaay ñun nga ñor ko daan siri bara ama wul wu jot bi ñes jaaxal nga Ibrahima Juuf ka nga donnu sañuñ koy wax siri bara ama waati sori bi ñes bàyyi gën ci doom bilaay ñun nga ñor ko daan siri bara yaay ilimaani mulkoon ko ɗon ko duratul ɓayɗaɓe ɗo masiri bara anna wotowaati ɗewa bibiñan baya kentiɗam bila yilngañol so anleri wala amma tawat fallare julingen baɗe ko kamuɗi yallah lacci waylon gañi bara amma wotowaati ɗewa bibiñan baya kentiɗam bila yilngayol anleri wala amma sam gadday ga jasbunay gay digin ninci debbo moy day jañi bara amma wotowaati ɗewa bibiñan baya gamtiro filayun ga ñawal solan ririwarama katam de kure kure ritmo wuti fam ñu ngay teftu aynol hollom gani barama kudwati lema bibiyar baya gamtiro filayun ga ñawal solan ririwarama aynol hollom bi ñaf kula yaakar balay dellu qaybu hijje fiyi malola la gani barama kudwati lema bibiyar baya gamtiro filayun ga ñawal solan ririwarama majsabi sax màcc gën a yéesaan xaguma seen xasta mag nga jënoog laskandari yaa gaañi bara amma waati sama fi bi ya gën ci doom bi lay ñun nga ñoo solaan a bara amma waati sama fi bi ya gën ci doom bi lay ñun nga ñoo solaan bara amma waati sama fi bi

jëntinam bilaa yim nga ñëw solaan si barama sanu kaamil ba jóg ka bar taxaw jublu pen ko mu ngay sobel mul ko mala góor gaañi barama waati lama bibi baa yëgën ci doo bilaa yim nga san ma leen beneen bëre taxaw jëmam jaañu dijil ma la góor gaañi bara ama waati lema bi mi ya bàyyi gën ci doom bi lay yum nga ñool soo daan si bi bara ama baka yor tirem gaañi bara ama waati lema bi mi bara ama mulkom mën a ko tijjil nga ñu magul xol yaa gani bara amma raati dama bi bi ya baye jël ci doom bilaay ñu nga ñëwal foo daan bi ni bara amma atam ji fay naa ca karama yi foor alamul qaybu tarama em sari bara amma raati dama bi bi ya baye jël ci doom bilaay ñu nga ñëwal foo daan bi ni bara moo ko loola montor bu dox yaa ko may cen sëriñ bara amma suraati lama bii ni yëpp bàyyi gën ci doom bilaay ñun nga ñëw wala li ni ba ma bara am nit ki nag kala ci biir bëtam noonu gaa yi weddi la damay war gaa ñi bara amma suraati lama bii ni yëpp bàyyi gën ci doom bilaay ñun nga ñëw wala li ni ba ci xoli jaam ñi jàcc te na xul bu montor bu dox yaa ko may cen say bi farama jaati rama bi bi baaye jëm ci doom bi lay nga ñëwalam te ni farama ba ca dundum réew yi malaat di ak ku fa taxaw xam na dooma say bi farama jaati rama ci doom bi lay nga ñëwalam te ni farama amma kunding bokku fatahu amna baidu masta kunding jadoi na keman sai di bara amma wati la na bibiya baya kentira bilai yanga yor horan sai di bara amma nanan jaba tunba nanyo fata rabia ku fatahu amna do mas ganye bara amma wati la na bibiya baya kentira bilai yanga yor horan sai di bara amma Jangan buat takar, tak kunding jadoi na keman sari bara amma. Wati la bilaay ñun nga ñëwal soo daan sëñ ba amma baat ba garab yi de fuut nin ki naka may bara amma waati bi bi ñun waaye gën ci doom bilaay ñun nga ñëwal ko demi mun cimbirami yalla baramal bakar de ke an sayri harama wadati lama be ginya baye kan kido bilayin ga yo la sayri harama ya ko tabi tayo sar samoy fi me sirru banga bo mala ko sayri harama wadati lama be ginya baye kan kido bilayin ga yo la sayri harama ande kana bari qadir jibril mooy seet dafay muslu seeti volcan si di bara amma bugaati dama bibi bàyyi gën ci doom bi laa yun nga jool xoolaa si di bara amma am na taj mu nekk daku bànjul ñu naan ko moom ci koot bara maa fa cene ay gars yi si di bara amma bugaati dama bibi bàyyi gën ci doom bi laa yun nga jool xoolaa si di bara amma yàlla gars yi dañ ma ay samandaay ñoom ñoo tee ci kéféer li ngar ya daan weddi suñ bàyyi gaañ bara amma bugaati dama jajjidam bila yirna yalladina مبتدئ دعما بجرب بلا سما دعما دفاين أني دعي دعي سيدي برهما كلاني لما بيبي باي جدا بلا يرغي الأرضي برهما بنجر جنب بجارة تنار قال يلا نرى أول دور بين كمان سيدي برهما كلاني لما بيبي باي جدا بلا يرغي الأرضي برهما bokkul xamalee dóor laa ilal laaj. kii an kan bur ñu bokkul. jaajëf barahama. kon waa nii la ma fi bi ñor. bàyyi gën ci doom bi laa yor nga ñor. bokkul baraan du seen maas yoonu ninki du coppeex lu ma gaañi bara am ma kon waa ni loo ko fi di bàyyi kan ci doom bi lay yu nga ñëw soo daan ni di bara am ma tu sa wet ci gis saman de wuti jaani ninki moo ma maanaa dem na may rek gaañi bara am ma kon waa ni loo ko fi di bàyyi kan ci doom bi lay yu nga ñëw soo daan ni di bara am ma ki cuma samba ko fa dem yàlla bara am ma ko tarde ke man sa di bara am ma kon waa ni loo ko fi di bàyyi kan ci doom bi lay yu nga ñëw soo daan ni di bara am ma Kichuman sambako pada mim yalla ya para amma pagar beke manganya para amma. Kuda di lama bibi ngerbaya kecidom bila yurne jol sodan sini para amma. nak maka kita buri jin kita baik kebukal noham galai so legal ganya para amma. Kuda di lama bibi ngerbaya kecidom bila yurne jol sodan sini para amma. teen yooyu la jar ya ko màggal si di barahama utaati la ma bi bi bàyyi gën ci doom bi la ñu nga ñëw xoolal si di barahama yow hinna maqaama barahama ko jas mu digal ko ci ninki nankan nga ñu barahama utaati la ma bi bi bàyyi gën ci doom bi la ñu nga ñëw xoolal si di barahama yow hinna maqaama barahama ko jas mu digal ko ci ninki nankan nga ñu barahama utaati la ma bi bi bàyyi gën ci doom bi la ñu nga ñëw xoolal si di barahama ma ko jëloon place am ma dox ma dafay mel ni dal day gaañi bara ama doom di lama bi bi ne bàyyi gën ci doom bi laa yu nga ñoo la loola mi li bara ama bàyyam jim ni feeñu moom lañ ñemee xool batin bal mu garde ma la koot sëñ bi bara ama doom di lama bi bi ne bàyyi gën ci doom bi laa yu nga ñoo la loola mi li bara ama bàyyam jim ni feeñu moom lañ ñemee xool batin bal mu garde ma la koot sëñ bi bara ama doom di lama bi bi ne bàyyi gën ci doom bi laa yu nga ñoo la loola mu mel ni bulus ba nga baxoo malakoot gaañu bara amma waati lama bi bi ya bàyyi ngeen ci doom bi laa ñu nga ya xool am si ni ba sama hati ndax bayakan si dom bila ejun ganyo warso dan sini barah amma tua ti nama di bingas bayakan si dom bila ejun ganyo warso dan sini bara amma ila ta illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah